فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون موم شيطان ميك بوك نا سي پخم نك نيمي ديف موي داف لاي ديغال غير nga bayyi lu bax li ngay def ya mur bi tarki non lay def sa so joge jëm ci lu bax da nga ah jëru ko de bàyyi ko moom noonu lay def moom saa soo jëmee ci loolu sa xel day waswasi ngir bàyyi loola la ngay def ci lu baax waaye du la seetaan ngay def déedéet tey jii boo ne woon tey jii danaa def dara wala su weeru wi dee danaa def dara weer wi dana ah baal ba welay ñëw baal ba nga war a dem berab sàngam ci lu baax wala bi sàngam wala mu la ah, nga war a jox kenn mu la ah baal ba suba wala baal ba ci kanam maanaam noonu wala nga war a jëf lu baax tey sànq ni mu la ah xaaral rek xaaral ba ci kanam waxtu yaatu na. baal ma ci kanam moom noonu lay dal dala koy bàyyiloo lépp lu baax loo bëgg def xel mi dana la dana la jax-jaxi te soytaan rek lay doon ngir mu bàyyiloo la loola